salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar bu ñu dab léegi soxal waa Real de Madrid xam ngeen ne seen défenseur bi yeggaliwut match bi doon dox démb ci diggante Real de Madrid ak Athletic Bilbao blessure boobee nag am nañu ca ay xibaar waaye xibaar bi nag neexul laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné go nga abone bës cloche bi nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk ci ñi koy njëkk a jot ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi xam ngeen ne doomu imbécile bii di Eder Militao démb dafa am ab blessure tey jii sax ci sunuy revue de presse ñoo ngi leen di wax ne blessure boobee tiital na waa Real de Madrid ndax ñëpp li ñuy ruumandaat moo di est-ce que du ligament croisé loolee nag waa Real de Madrid ñoo ko dëggal xam xamle ni moom Eder Militao ligament la am club boobee nag jamono ji ay blessure daf leen gane si ndax bu yàggul dara seen gone gii di Arda Güler dafa amoon blessure ñoom ñu jël ndogal noppal ko waaye bi ñu koy noppal nag gis nañu ne blessure am boobee wér gi muy wér dafa yéex waa Real de Madrid jël ndogal ni dañu koy opéré waaye fi ñu jëlee ndogal loole ba noppi rek fi la doomu Belgique bii di Thibaut Courtois am blessure ligament moom it dañ koy opéré waaye nag opéré guñu ko moom Thibaut Courtois dina toog nag ay weer yu bëri du taxaw ci ay kangóolu démb bi ñuy jàkkaarloo ak Athletic Bilbao doomu Brésil bii di Éder Militão door na match bi doxal waaye yeggaliwu ko ndax ab blessure moom it ligament la am kon nag dinañu ko opérer kon jamono ji nag waa Real de Madrid am nañu jafe-jafe li ko waral moo di kat seen défense boobee doole jàngay gën a wàññeeku ndax taxawaayu Courtois amoon na solo lool ca club boobee ak Eder Militão foofu sax dinaa fa samp ab laaj Real de Madrid day wuti beneen défenseur mu ñëw jàppale leen am day bàyyi ñett ñi fa nekk ñu doxal muy capitaine bi di Nacho Alaba ba ca Rudiger jamono ji nag